réseau des hôpitaux d'Afrique de l'océan Indien et des Caraïbes bi mooy nekk ñaareel bi yoon ñuy waxtaanee lu ñeel certification hôpital yi nga xam ne ñoom la lëkkale mu war a yemook fukk ak ñaareelu édition bu xew-xew bi ñu duppee rencontre hospitalière war a am fii ci réewu Sénégal bi la yoon bi la thème waxtaanee woon nañu ko ci ndaje yi ñu doon amal ci atum 2005 lañ sa jublu du lenn lu dul fexe rek ba hôpital yi gën a tegu ci yoon gën a rafetalit anam gi nga xamee ni noonu la ñuy jëflanteeg way tawati. donc ci gàttal il faut que ñu def ba nga xam ne buntu ba ba ca morgue ba dañuy dem ay procédure maanaam ay tëralin ay doxalin yoo xam ne ñëpp a ci d'accord hôpital boo mos dem noonu lañ koy defee. Sénégal ñu ngi koy def commencé nañ ko wax dëgg yàlla def nañ actuellement nii am nañu direction qualité boo xam ne bii ñu ngi def démarché qualité wax nañ hôpitaux yi léegi ngi teg ay service qualité ensuite ay ay procédures yu ñu war a commencé. mais dafa diis dafa metti ñi war a waxtaanee mbirum way tawati bëgg gën a yaatal paj bi nga xam ne moo war si ñoom fexe it bu hôpital yi di neex a dem askan wi kenn du am jafe-jafe ngir jot si lu ni mel démarche qualité mbébét bi mooy fexe ba wéy tawati kontaan. waaw ah, mais lu gën a importance mooy ñu xam njëriñu certification njëriñam mooy yokk confiance maanaam usager yi dañuy gën a am confiance ci hôpitaux yi. partenaires yi dañuy gën am confiance ci hôpitaux yi c'est très important donc raaya boobu suñu la ko joxee mooy jaar nga fi fi nga war a jaar. lu tollook juróomi téeméeri doomu aadama dinañ bokk ci leen ndaje di am fii si Ndakaaru diggante ñaar fukki fan ak juróom benn jàpp ñaar fukki fan ak juróom ñett ci weeru gi ñu nekk nii si fàttali nag Sénégal bokk na si réew yi nga xam ne ni ñoom ñoo samp bi les